fa tabaarakalla macha allah ñuy àndaat ak yéen ba tey rek ci seen émission bi di wareef di télévision Futurs Médias seetu askan wi suñu duggee nag ci hôpitaux yi génn fa dañuy dugg ci prison yi nemmeeku bu baax a baax ñii nga xam ne ñoom la caabi féetee gannaaw nee naa leen béréb yooyu jombul kenn nañ ci bàyyi xel.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 demal maa ngi ñëw rek la allah ji ñuy jaale bu baax a baax euh, juróom ñaari euh, mareyeurs wala pêcheurs yi nga xamante ne ñoom ñu euh, lap ca côté Nouadhibou nga xamante ne ne ay doomu réew mi la ñu ne ca côté Nouadhibou fala foofu ca Mauritanie la ah, ñu réew ñuy jaale seen njaboot bu baax a baax di ñaan suñu borom bi àtte leen ci yërmandeem ñuy gi leen ci àjjana yu gën a kawe ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakàlla macha allah xam ngeen ni nag seen émission bii di wareef ay tam la démb nag mu dugg nag ci biir hôpitaux yi fas yéene waxtaan lan hôpitalu Sénégal yi nga xam ne malaat na yii malaat yi nag lañ ci jukki naam malaat yi nga xam ne moom la hôpitaux yeeg structure de santé yi fii ci réew mi feebar bëri na waaye ñaar lañ ci jukki benn bi muy négligence bi nga xamante ne am na ci hôpitaux yi ñàkk toppatoo ñàkk worma ñàkk faale ak li nga xamante ne mooy erreur médicale la sa tànk di metti ñu ne la sa xol sa bët di metti ñu opéré la rein yooyu yëpp nekk ay xeetu ay négligence opéré nañ ma fàtte fa euh, euh, wëteen hmm. opéré nañ ma fàtte fa ciseau opéré nañ ma fàtte fa nangam nga gis kenn koo xam ne bu muy dugg hôpital daanaka lu ndaw moo ko fa dugaloon waaye génn faat balaa génn faat loo xamante ne kenn mënu ko wax fenn su fekkente ne sax mu ngi ak bakkanam loolu yëpp nag nekk ci suñu hôpitaux yi ñu fas yéene waxtaan xool mbir mi ndax ñàkk yërmande la ndax ñàkk professionnel la ndax ñàkk askan wi la loolu yëpp waxtaan ceeg yéen su ko defee ñu gindeeku ko ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ci numéro yi ngeen xam ne mii ngeen ko di 88 628 22 22 sooy wootee ci réew mi 88 628 22 22 sooy wootee bitim réew nga def 00 221 33 841 22 99 00 221 33 841 22 99 xanaa di ñaan yàlla. door ak bisimilah rahmaani rahim delluwaat di ñaanaat buur bi yeggaleeg alhamdulilah rabbil alamin te yàlla bu ñu dara fakkatal ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaye balaa ñuy dem fenn nañ dem ànd seetaan revue de presse dellu si léegi léegi ci kàttanu yàlla ci seen émission wareef ci télévision Futur Média kon lancé na la régie. ngeen jëf Omar Sarr moo di coordonnateur parti démocratique sénégalais fa mu jëm a gars yi muy coordonné moo di delloo ñu suñu yëf ndax doyatoo ñu Pape fa ma ko teg moo ngi nii ci observateur jox ko gars yi di ndok yéenekaay bi xëy ñu xamal ne Omar Sarr dañu ko laaj xalaatam ci gouvernement d'union nationale bi Macky Sall di woote mu joxe ca tontu te laaju ci ñooñam ñi mu bokkal PDS yéenekaay bi ñu lii la ko gars yi singlé te lañu koy tuumal moo dafa bëgg am deal boo xam ne da ko bëgg ànd ak Mahmoud Saleh teg leen ko Omar Sarr leeralal waa observateur li nga xam ne wax na ko ci émission bi doon am ci 2STV ba mu jur coow li ma nga fay leeral ne dañ ko njëkk a xam ne tëj union nationale it mu joxe ca xalaatam yéen kaay bi ñu loolee nag moo jur coow li coow feneen fi mu am moo di réewum Sénégal ak wàllu guerre di corruption bi nga xamante ji na ko la mu njëkkee moo di ñoom ñooy voté loi yi xeex wàllu sàcc Mouhamadou Mbodj ne am na loo xamante ji xel nangu ko ndax OFNAC yi nga xam ne dañu koo teg ngir muy xeex wàllu corruption wàllu guerre ak yu ni mel lu toll ci téeméeri téeméeri million la ñu ko jox ci jamono joo xamante ne ji jigéen ña ci États-Unis sax Macky Sall ba mu leen di jox ñaari téeméeri million la yëkkati jox leen Mamadou Mbodj ne loolee kenn da koo munta teg fenn te it nee na nguur goo xamante ne ji ci corruption lay doxee daf dañ ko corrompre buñ sonn munta xeex wàllu corruption loolu moom guddal mbéyum noor la mais mënut a nekk la nekk ci xët mu njëkk bi di libération moo di mbirum Moubarak Lo libération xëy ñu ne am na yeneen révélation ne sulli mu njëkk moo

Tall ministre yi ñoo ko def jëf ju bon ne ba ñuy amal li nga xamante ne ji moo di plénière ca conseil économique social ak environnemental ci fukki ministre yi nga xam ne woowoon nañ leen yéenekaay bi nañu ñetti ministre dong ñoom ñoo ca teewoon ñecca des ñëpp dañoo budde ki nga moo di Aminata Tall populaire xëy dikk ñun ci ñu nar a budde Macky Sall ak doxinam waa Macky a teg Macky nga xam ne noonu lay doxalee di jox loxo ñooñ euh, feneen lañ féete woon ci wàllu politique Macky nekk ci nguur gi njëkk ànd ak ñoom yéenekaay bi nañu waa Macky 2012 ànduñu ci nee nañu projet boobee moom na ko teg ci suuf te nag am na meeting bu ñu war a amal ci diwaanu Géejawaay populaire ñuy wax meeting boobee dañoo bëgg a wane seen doole wane ñi nga xamante ji dañ leen recycler ci wàllu politique ne du ngeen fi tekkee dara ñu suite quotidien di budget yi nga xam a jàpp mooy dépense amul benn njariñ ñoom la gën a jox xaalis ñoom la gën a jox kon lii di budget observateur xëy na jox kàddu gi kii moom Icon Magazine mooy directeur de publication ba nit ñi yàgg mi ngi Mansour Dieng Mansour Dieng wax na fa lu doy waar la mu njëkkee moom ci yëm boppam nee na am nay xaritu góor jigéen waaye nag fa ak ñoom Mansour ca wax ja ne moom dañu koo liggéey ci ci gàttal daal ay nit ñoo ko jugal liggéeyal ko ba tey ci biir journal bi nga xamante ne ji moom moo di Euh, observateur nee na euh, fii ci Sénégal ay kàcc ay fen dafa dem ba mel ne sax far dafa bokk ci nit ñi dafa dem ba mel ni diine ci ñi nga xamante ne ñu ñëw di nit ñi ñu dem ci grand place fekk fa meneen mbir mu di Bada Fall régisseur prison bu Thiès bi nga xamante ne ji ma nga woon ci loxo yoon kaso ba mu doon garde jiite ko fa lañ ko mujj tëj yéen kaay moo ñu ko wax ndax wàllu corruption gerab yooyu lañu koy toppee tëj ñu ko ñaari ati kaso stade yéene kay fa laa jëm fekki fa football katu Sénégal bii di Alaaji Ousseynou Diouf ba Sénégal ñàkkee qualification ci coupe du monde ba léegi kenn déggu ko Alaaji Ousseynou Diouf wax naa ko stade yéene wax jàngi nee bu ñu nax suñu bopp ñàkk jom weesuwul ñàkk qualification ba noppi nekk fa di jubilé ma wax ci wàllu lamb mi jël jox kàddu gi Bekaay Mbay Bekaay Mbay borom Bantamba di ko laaj combat bu ci nekk lu mu ci gis mu nga njëkkee ci ëmma ak Modou Lo nee na Bécaye wax naan moom mooy Baye Mandione ñu Bécaye Mbaye ne bu mu nangoo doon guy gi daan rek gone yi di jaar ci moom di yéeg maanaam bëgg ko def escalier beneen combat diggante Zos ak guy gi mu ne moom Zos la jàppee lii di favori ba kiroog muy gis leneen ñu gis leneen ci beneen journal Pape andil ma journal bi nga xamante ne ji moo di Le Soleil démb njiit réew Macky Sall ma nga woon ci ranch dolli demoon nemmeeku ji sàmmkat ya fa nekk mais euh, euh, photo bi dafa doy waar Macky Sall ci biir jur gi indil ko téléspectateurs yi ba suba ak jàmm. <laughs> jërëjëf mbokku téléspectateurs yi am mbégte nag dellu seeg yéen ci seen euh, émission wareef ci télévision Futur Média seetu askan wi gannaaw ba ñu àndee seetaan revue de presse euh, fatabakallah macha allah alaaji ba tey rek ñu dellu si ci tam bi fan lañ toll woon démb ci mbiru hôpitaux yeeg bagaas yeeg li may crise loo fan toll rek bi mooy rek euh, li malade yi daj. <laughs> man la malade bu amee jafe ci kër jëm ci hôpital. Mhm. fekk fa négligé ak ñàkk yërmande. Mhm. dee na te yeggul. Mm. loolu lan toll na te yeggul. waaw mhm. ndax euh, feebar. ak jigéen juuru la boo leen jegee di leen mocc di dala seenu xel loolu ñu ko yëkk bi ab doom jee daanu da koy bett mhm. comme négligence ñëw na ah, waaw mhm. foofu la yemoon suñ demee ci nag nga am méttitu nopp ñu xotti sa biir waaw kooku nag li ko indi tuuti digg dama yaakaar ndax waa ji li mu téléphoné démb mhm. góor gi indi woon ndaw si dee ni jigéen li ba pigir ko yooyu dama ragal njaal waaw pour romb <laughs> dafa am yoo xam ne toujours ñaareel dañ koy war dama raxas ne nañ di seet tey segg Sénégal ak li ci ëpp dañuy falta duñu segg dëgg la boo bari dëgg ndax ki nga xam ne kii normalement mm. piqûre la war a féetewoo boo ko opéré rey ko mm-hmm. tooloo fi bari nag lool mm-hmm. lool mm-hmm. waaye bu ñu doon segg na ma njëkk ñi daan def kenn ku ne la nga moom ñu jox la ko jàmm rek mooy am bu ñu ci boole yërmaane nag yàlla man ci def sutura bu baax kon ci tënk Zeydi bu mu am kenn koo xamante ne nekk daf ma woo nee ma erreur yu médical yu bëri ñu ngiy am parce que docteurs yi dañu stressé mën na ko waaw. docteur yi stressé mu ne waaw parce que ñu ci ëpp duñ leen fay bu baax charge yi bëri na ak yooyu man ne waaw d'accord naa. Mhm. waaye ki nga xam ne yow waat nga. ne fet euh, ne ne fet moo la tax a jóg. Mhm. am sa bac teg ci dix ans. wala quinze ans mhm. spécialisé wu. toog ba nga xamante ne ne que yaa ngi dugg ci structure ne dangay ngay mais kooku. defe naa ni fekk dong dong dong dong moo la war a itteel. Mhm. parce que ñun par exemple ci suñu liggéey. ñun li ñuy def. Mhm. Mhm. suñuy toog fii di di jàkkaarloo askan ni lépp luy problème ak lépp luy souci lépp luy xulxul dañ koy teg ca su fekkente ne yow nga ne nekk docteur ga. am naa yaakaar loo xamante ne muy stress la ak lay tax ngay loxo lay dagg tànk te waroo dagg ak dagg nopp te ak wala bëtt bët ak wala fàtte ci ay mbir yooyu da ko war a bàyyi sa kër wala ci buntu hôpital ba kon dafa am ay choix. yoo xamante ni nit ki su fekkente ne nekk def na ko ci vie am mhm. waruñu ci am sax excuse ci ay yenn assuré médical parce que dafa tegalantoo mhm. mës naa gis benn femme boo xamante ne nekk dañ ko doon opéré euh, genre ay opéré biir yu beneen rek yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy am ay mhm. genre ay fibrome wala ay genre kyste yooyu mais ndaw si ba mu jógee ci opération mais toog na deux ans yoo xam ne dafay jàmbat biir bu metti su toogee naan day jàmbat ñu naan lii nii lan la lii nii lan la ndekete dafa am loo xamante ne nekk dañ ko ca fàtte woon mais gis nga kooku bañ toogee di di génnewaat loolu ndaw sa daal ci la jugee wéyu di ba kew ba muy génn àddina mm-hmm. xam nga dafa ci am ay genre ay yoo xamante ne gis naa fi am naa fi benn cas boo xam ne mm-hmm. ñëpp xam nañ ma sama diggante kenn koo xam ne Marème Niang ba ma évacué woon ca ca ca ca kii ba may nekk rajo ñëpp gisoon nañu SOS Marème Niang mm-hmm. bi nga xamante ne defoon naa ko ba léegi Marème Niang mu ngi may dégloo Italie mais erreur tutam gii lu ndaw luñ ci doon génne mais mujj gi put bi fii ngurum natt ngurum nattaat opéré nañ ko fi lu mat neuf fois ci put gi mujj gi mënul wax fii lay nooyee fii lay defee yëpp ci koo xamante ne professeur bu célèbre boo xamante ne moo ko defoon teg ci ay clinique lañ ko doon joxee rendez-vous ba mu jeex la takk ñëw ci confidence mujj gi ñu ketal ko jaaykatu gerte sax jàpp ca ba fi mu nekk ne ma nga Italie ba demee ci jëm boppam ñooñu dégg naa docteur yi ko njëkk a ñu ciy gërëm euh, gërëm bu baax Abdou Mbacke Ndaw mm-hmm. bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. ak waa mouvement euh, MSI euh, Abdou Mbacke Ndaw daal mm-hmm. waaye daal bañ demee dégg naa italien yi ñi ko njëkk a dañ ni kii naka la def ba dund si moom daal su jékki-jékki di wax yow génnee affaire ba teg te suñ lay wax parcours ba ca Thiès fa mu tolloon erreur médicale sur erreur suñ la opéré dellu soit baaxul di la opéré ci tub ba mu mat ay neuf fois loo xamante ne ni que erreur sur mm. ña nga xam ne ñoom ñoo constaté erreur bi di colmaté loolu moo nekk ci réew mi. moo fi nekk de. loolu moo nekk ci réew mi. waaw di gën ku ci nekk da nga ko waroon war a xool ci sa bopp. soo demee ba def sa choix. ne man lii laa bëgg doon. da nga ko war a mën a assumer. parce que bakkante taa di dafa fort te dafa am ay erreur yoo xamante ne soo ko defee sa giiru dund te sa euh, euh, benn yoon ci sa dund te laa problème tata diggéen parce que sa conscience du la bàyyi nga tranquille mm-hmm. te bakkan dafa nekk loo xamante ne tata diggéen dafa fort trop moo tax képp koo xamante ne tata diggéen pare woo pour def yenn liggéey bu ci dugg hmm. parce que médecine nekk na loo xamante ne dafa doy waar parce que da ngay faj di sauver ay nit tataa di ah. gën hmm. te kese hmm. moom moo doy parce que yenn liggéey soo ko def tataa di nga am yërmande gu doy ci doomu boole ci équilibré dans di noppalu tataa parce que yéen imagine toi xarmat gi moom moo sonal tataa di gën soo nekkee ci benn hôpital boo fa pare yaa ngi xool clinique boo xarijee ba nga xëyati te a ñëw ci hôpital tata dégg nit dafa soxla noppalu xëy na stress moom ñëpp a koy am tata dégg mais ci nekk ak ni ngay gérer stress li ko gën a mën a gérer noppalu si la bokk bëgg boole fukki clinique ak ñaar boole ko ak hôpital bi nga ne ba pare malade bi di fay voilà bëgg faj correctement tata dégg c'est pas possible xam nga te am na wax ju neex Allah di li wax Mado Belkide Mbodjaay bi ma ne dama yëkkati thème bi daf ne maman soo yëkkati thème bi damay ñëw toog mu ne ma ndax fii rek ci structure bi nekk fii ci deux voies liberté six rek mhm. mu ne ma ànd naa fa ak sama frère xaw ma mu ne ma mais fekk fa benn docteur bu arrogant boo xamante ne di bëgg rey maladie di sànni ay kii dégg nga Mado su koy laaj nee na su koy ne ne nee ne ne kii comprendre mu koy naan awma awma lu ma lay wax su fekkee ne comprendre euh, affaire am la mais xam nga dafa am ay ñàkk woo ma man dama toog nag ma ne Sénégal dañ dem ba nga xamante ne nag xamatuñu seen droit mm. dafa am yenn yoo xamante ne nit ki su la koy def te fi am jël na nga jumtukaay yi wala laajte jumtukaay yi ca war su laajee enregistrement su laajee huissier lu mu laaj nga topp ko jusqu'au bout parce que dafa yomb négligence yi nga xamante ne am nañ ko xoolal euh, ki nga xamante ne ne ko ngi ko jël à l'âge de 10 heures pompier ko yeb ko hôpital bu mu dem kenn du ko xool sax ñu ne ko amul place ci koo xamante ne ne que ma ngay cardiaque di fudd tëli tël tëli tël tëli tël tëli alaaji ba mu dee ci lu mat cinq hôpital ci réew mi te loolu benn exemple ci ay milliers de cas yoo xamante ne am na fi pour la waaw xam nga dëgg li ma la def ñu jomb non du jomb laa sa ni tëjul téléphone xam nga dama la ne bu germani dugg lu la neex def dama ne médecin docteur sage-femme pour la waaye dañ ko tudd nit te du ko mat. diplôme yomb na. waaye réussir si moo jafe ba am ci yàlla. yombul. ndax ki ngay tiir te lu ne ngi ci biir. nit ëmb bi yàlla la. saa boroom ba yor ceeb bi. mu ne. waaye am na lu saa boo ko defee yàlla mën na ciy dimbali. dafa am loo xam mën nga ci am saa borom. ndax ci eh, xam nga ni boo ko ci jiitalee rek. Mm. yàlla mën la ci dimbali ba di ci am dina am ci bar. alaaxira caat mu jël ki ci ligne bi jël ki ci ligne bi caat. allo. <laughs> allo. salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam euh, Zeyna. waaw soxna si maa ngi nuyu bu baax. ñu ngi lay fay bu baax. en fait man dama bëggoon intervenir ci émission bi. Mm-hmm. parce que man tout récemment j'ai eu un cas mais. Mm-hmm. du woon ak hôpitaux yi mais plutôt benn pharmacie. ok parce que dama amoon dama demoon c'est-à-dire man lay nuyu bu baax. maa ngi lay sangal. voilà lay sangal bu euh, baax donc dama demoon consultation. Mhm. ak ko bébé ñu ko garab. léegi ma yàkkamti ma dem benn pharmacie bi nekkoon juste à côté ci structure boobu. Mhm. pour euh, ñu jëndal ko garab bi ma leen ni sama rakk nekk dama jënd ko donc bu ñu jëndee garab bi ma jël paquet bi rek def sama ba dem ñibbi donc li ma waree woon jox xale bi garab bi il faisait deux normalement une heure de une heure du matin ma waroon jot. Mhm. boobu ma ma ma ñeewu ci nelaw jóg pour defaral xale bi garabam. Mhm. donc comme man dama yi ak xale yi je suis très prudente. ubbi ordonnance bi di liiraat. yëkkatee beneen garab xaw ma sax fu garab boobu la jox xale bi donc dañu juum dañ koy délivrer garab bi. <laughs> ma sant yàlla parce que xale bi un mois la am donc imaginer leen ma joxoon ko garab boobu lan moo naawoon am comme conseil. <laughs> ma ba sa def ma woote ci pharmacie ma laaj ci pharmacienne bi ñu ne ma nekk ma jot vendeur en pharmacie bi vendeur sax ku jigéen. Mm. du ma wax pharmacie bi parce que man malheureusement dama nekk ci corps médical bi donc mënu ma ci wax mënu ma ci sore mais mhm. mënu ma ci torop ma woo vendeuse bi ne leen tel démb à pareil moment ñëw naa fi jënd naa tel médicament def naa lii ak lii mais da ngeen ban garab ngeen ma jox da ngeen jum wala lan bi mu xoolee ci machine am ordinateur bi parce que léegi tout est informatisé mhm. mu xool gis ne effectivement garab bi nga wax jaay ni la ko dañu jum jox la beneen garab ma ne que nag ma téye femme bi di ko sensibiliser. bu mm-hmm. xoolal lii dafa graaw. Mm-hmm. c'est des choses à ne pas faire parce que xale bi un mois la am imaginer leen ma nekk ci nelaw ma jóg une heure du matin boobu koy jox ko garab. jox ko ci kuddu. <laughs> ban musiba moo naroon mm-hmm. ma wax ba pare femme bi ne ma waa madame déglu naa la nag léegi nag couple damay wax ak yeneen clients yi ak arrogance boo xam ne ma ne ko yow bi yow yaa ma war a wax man man cliente laa te je plaide la cause des autres malades nekk fa de wala clients yi da nga ma war a déglu ba ma pare nga wax ni amoo loo may wax waa ah su la dayee foofu kon wooteel 2STV seen émission boobu ñuy def. boobu boobu tontam j'étais scandalisée ma ne ko en baax na. pharmacienne bi nag koy woote mën naa ko gis sax sama position moo ma mayul ma sore ci. mais da nga koy rendre service soo ko ko waxee ka moom yëf ba. et j'ai tous les éléments ba tey maa ngi garab. ba ka moom pharmacie ba di ko rendre service pour xam ne type vendeuse yooyu la yor. ah xoolal erreur boobu yow def nga erreur suñ la waxee nga nangu nga ne baal ma excusez wu waaye naan ma wooteel 2STV lii xaw ma lan ma laa damay yooyu je léegi <laughs> fii lan la xale bu am un mois ma jox ko garab boobu musiba am kuy ñàkk man maay ñàkk. Mhm. donc ñun war nañ def attention mais ñoom tamit war nañ xoolaat seen personnel bi ñuy recruter. Mhm. former leen bu baax. xam nañuy waxanteeg malade yi accueil bi c'est très important. Mhm. ndax man sama ci boobu moo fa demati. moo fa yebal nit te ku fa naka dem dinaa leen bi mooy sama position man dafa délicat ba nga xam ne man je suis dans le corps médical te xam xamul tax ni que man mën naa lijjanti lépp te moom mën daal malheureusement man loolu ma metti mënuma ci ñu ma ci bokkee moom xamul sax kan la doon waxal kan la. Mhm, mhm. donc ki ngay waxal tam xamuloo kan la. ñëw mhm. na di jënd xamul kii mënuma ci sore daal. mais nañ def attention à l'avenir. Mm-hmm. accueil bi surtout. nañ xool bu baax ni ñuy accueillir malade yi. ni ñuy accueillir clientes yi ci hôpitaux yi. te man j'ai mes preuves tey jii yëpp tey yeeg reçu baa ngeeg man defaloon nañ ma facture parce que ma jënd demande facture. Mm-hmm. seen cachet pharmacie baa ngi ci donc mën naa leen topp fu ma. maanaam mënoon nga ko yóbbu mënoon mënoon nga ko yóbbu fu sori. Ah, maanaam maanaam mënoon nga ko yóbbu fu sori. soo ci waxee ñu ëpp la la miñ foog ni que xool loolu réponse bu correcte la ngeen foog. Mm-hmm. ku jóg ah. loolu ak li ma di la. donc vraiment nañ xoolaat suñu bopp. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna si jërëjëf. Hmm. merci et puis et puis nga fóonal ñu suñu bébé bi. dina ko dégg bu baax dina ko dégg. waaw sama chéri hmm. fóonal ma ko bu baax a baax. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. allah xam nga ko wax lépp nekk wax ka. Ah. wax ju neex sarax la. tooñ ba pare tooñ ñaar bi la. te man Sénégal yi lu tax mënuñu wax baal ma. lu tax mënuñu reconnaître seen erreur gis nga docteur yi ñuy wax ñi nga xamante ne ñi ma ne ñi ci nekk nañu xam ne ñoo ñoo ci ne ña ci nekkul kenn tebaalewu leen waaye gis nga ñi nga xam ne ñoom la ñuy tam nga xamante ne li ndaw si euh, li ma liir ci journal ba dafa dugg mu xëccaat mbaaj mbaajam ne ko damay nelaw wala ah. kenn ki nga xam ne démb euh, ki oowee Afrique du Sud hmm. ah nga xamante ne nekk dafa dafa ñëw mu ne ko damay seetaan match ba ba xale ba dee ci saa si jëlal allo allo oui. salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. ñu ngi lay di la dalal bu baax. na ngeen def. ñu ngi fi sant. waaw maa ngi leen di gërëm ci seen émission bi. jërëjëf. waaw tey laa ma sa woote ci Wareef maa ngi France. c' mhm. waaw maa ngi tudd Ba. Oumou mhm. Oumou. waaw Oumou Ba nekk Elbeuf. ba ba waa Elbeuf. ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di bëggee. ñu ngi nuyu waa Elbeuf yëpp ak sama doom baay ña fa nekk ñëpp. <laughs> waaw ñoom ñëpp ñu ne ñoom Astoufal ñoo nekk. ndeysaan ndeysaan soxna Astoufal moom suñu lépp la. Mhm. waaw ndeysaan. ndeysaan ndeysaan kontaan nañu bisimilah. waaw sama xarit yi ñoom ñoom ñoom moo leen di bëggee. ñu ngi leen di sargal waxal sargal leen ñu ñëpp nag dégg nga. waaw mu benn problème. bisimilah bisimilah. waaw dama leen di woo pour seen thème bi. Mhm. parce que man euh, sama benn neveu. Mhm. yaayam Sadar Ba la tudd mi ngi nekk euh, Kër Massar. Mhm. problème bi ngeen di wax négligence euh, dans les hôpitaux moom la am. Mhm. xale bi dafa daanu feebar. nekk daal presque ñoom ñu ne ah xale bi dafa sonn xale bi dafa sonn waaye ñun amuñu ambulance amuñu nii on a on place. léegi xale bu nekk dans le coma ñu ne nañ ko dugal ci taxi ñu dugal ko ci taxi ñu ngi ko defal perfusion taxi bi embouteillage yi xool leen euh, Kër Massar ba Dakar. Hmm. ñu ubbi euh, kii yi vitre yi di ko upp pour xale bi mën a am air yéen yéen ñu nekk Dakar gis ngeen embouteillage yi ñu dem euh, hôpital xaw ma Dantec xooluñu ko ñu ne amul ñu dem hôpital principal. papa it c'est un professeur donc am na invitation budgétaire. donc mhm. euh, mën nañ koo jël. Mhm. foofu ñu nekk foofu di def non je crois hôpital principal la ñu mujjee moom daal dem nañu hôpitaux yu bari xale bi noonu xale ku nekk dans le coma mënuñu koo yóbbu euh, ci ambulance ambulance am na si ren dinañ koo écarter yoon bi. Mhm. xale bi ci biir oto bi la dee. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. fu mu dem ñu nekk nga jóge Kër Massar yow ñu war la kii nekk dans le coma. yow nga naan amul place amuñu ambulance amuñu nii amuñu na ñu ubbi viitu taxi ñu ubbi viitu taxi di la uppee ba biir viitu taxi fekk am xam nga taxi kenn du ko mën a may parce que euh, mm. ambulance la mm. xale bi nekk foofu ñuy ëpp ah waa mm. ak perfusion ak perfusion ñi nga xam ne infirmier nekkul ci biir euh, ci biir oto bi moo tax dañu naan ñoom bu ñu jógee naan ay jullit ak man fii euh, en France mais boo demee boo feebaree ba dem ci hôpitaux yi. Hmm. da ngay wér sax ndax ni lay accueillir. wallaay da ngay wér ca saasa. ni ñu lay accueillir da ngay wér da ñëw ñuy raay sa bopp yi di def nii naan di la mën nga affaire bi première fois bi ma feebaree fii dem hôpital ci hôpitaux yi. non hmm. man sama xol dafa sedd parce que man nii am naa am naa fa defoon naa fa benn avortement. Hmm. ñu may def loo kirtaas ci benn euh, clinique bu nekk à Pikine dama fàtte tur bi. comme li femme boobu ñëw heureusement. Mm. trois jours après sama biir bi di metti ma naan sama jëkkër ji sama biir baa ngi metti rek. Mm. ñun dafa am lu ñu fàtte woon ci sama biir bi. aha merci. kon bu rëy a rëy a rëy a rëy. waaw moom lay ñëwaaleel de nekkul ci pëy. waaw léegi man daal affaire bi ba ñu paree mais mu nekk foofu di excusé wu di def nii di def na ñun suñu problème mooy dañoo war di porter plainte. Mm. parce que man dama. bu ma ñëwee Sénégal bu soobee yàlla sama sama nëba boobu Pa Omar. Mm. dem na mais dinaa porter plainte. wutuma ci xaalis wutuma ci dara parce que ni hôpitaux yi sages-femmes yi les les médecins ni ñuy ni ñuy accueillir doomu aadama man loolu moo ma metti dafa mel ni yore wuñu xol. Mm. man bu ma ne sax xolu jullit parce xol boo ko yore jullit amul chrétien. Mm-hmm. na rafet rek na waaw 17 ans nga def noonu même yàlla mooy yóbbu bakkan mais boobu mooy ñëwul mais ya ya pas place ya pas place allez-y voir ailleurs allez-y voir ailleurs xale bi nekk ci biir taxi ba dee ci biir taxi. Hmm. ak perfusion. Hmm, ay mbokkam gàddu perfusion ba. waaw ay mbokk yi yaayam moo gàddu woon perfusion fan leen yaay ak doom lu mu nga gàddu perfusion xale bu nekk dans le coma. Kër Massar ba biir Dakar. Kër Massar ba biir Dakar waa Kër Massar moom xaw ma dañ doon laajte xaalis pour euh, kii ak yooyu mais moi.

dama lay wax toujours ne la euh, malade yi am na ci ñoom feebar métti métti métti suñu demee kenn du leen piir mm-hmm. xam nga euh, docteur ni koy fàtte si ay biir ah ciseau kay gën mënu ko fàtte laa neex ah, waaye <laughs> ciseau tey dañ koy fàtte ñëpp am nañ dëkk bi jërëjëf allo te nga wax ci ciseau dafa jëm ci biir allo maaleykum salaam soxna si. ñu ngi lay ñu ngi lay fay bu baax. ñu ngi lay Papa Ndiaye Lo Ndiaye ak Tata Dégène. bu baax a baax a baax. ak euh, ak yow Thiam. maa ngi lay fay bu baax soxna si. waa émission maa ngi wootee bitim réew damay def tur bi maa ngi wootee États-Unis. Mhm. émission bi man mooy faral di woote waaye émission bi ngeen def dafa am solo trop trop. dëgg la. parce que man sama yaay. man mhm. principal laa juddoo. Mhm. bi ma juddoo principal. sama yaay dafa dañ ko opéré. Mhm. bi ñu ko opéré ñu xàppe contracture ci biiram. affaire bi dem ba infecté. bi mu infecté sama yaay feebar ba sonn parce que man sama papa ci liggéey mais temps boobu dañ ko yóbbuwoon ci beneen dëkk. bi mu jógee di fekk sama yaay ñu ni affaire bi mu ne leen affaire bi normal la ngeen ko opéré waat. Mhm. bi ko opéré. affaire bi amay fekk. loolu noonu dafa jural sama yaay feebar boo xamante ne ba mu nekk ci diggante dund ak samay nopp. léegi nii man sama yaay benn doom la am man rek la ci problème boobu la jógee. waaw mënul am doom donc Tata Gueye. émission bii ngeen def dafa am solo. jëf. Hmm. dafa am solo parce que nit ñi ñu nekk ba ñu nekk ci hôpital yi Tata dañuy defe ne place bu ñëwee lu leen neex nañ ko te métier bi dafa nekk loo xam ne boo ko jàngee da nga ko war a xam bu baax. Hmm. parce que man fii ma nekk ci États-Unis ci loolu laay liggéey mais fii États-Unis boo feebaree ñëw. investiguer balaa ñu jël benn décision dañ koy gëstu gëstuwaat ko boobu la téye. donc fii c'est comme si que ne les gens à l'erreur. xëy na fii bu affaire bu façon cas yooyu amee dafay fekk ne boobu ndogal dëggantaan la. yàlla dogal ko mu ñëw. Mhm. mais Sénégal affaire hôpital bi Tata man mosuma woote ci télé di ngeen ci woote dama sawar pour dugg. Mhm. parce que fii ma la ko waxee sama yaay day feebar ñu indi état bi tout le temps. Mhm. mu bi mu amee ba tey Tata man benn doom laa ci fii am fii maintenant. wallaay wallaay dafa amaat beneen doom. wallaay wallaay ci lan ci erreur ci erreur boo xamante ne ñoom ñoo fàtte complexe ci biiram. <laughs> bàyyi ko fa. dem di infecté ñu koy jox ay muy naan ba biir bi bala mew. a ah. ah. sama yaay boo ko gisee biir bi ba lii bi dafa rëy. donc <laughs> man dama leen di sant di leen gërëm. ndeysaan. parce que vraiment vraiment yéen ñi wax loo xamante ne tamit dina gënoo ci nit ñi. dina xalaat lu nit ñi. dina tax nit ñi nekk a prudent. ci bu ñu hmm. hmm. wax nag ak soo nekkee fii Europe. gis li am Sénégal da ngay ragal sax yow dem Sénégal. Mhm. xam nga ni moom koo sama benn copine ñu ngi lay nettali dama rakkal dafa feebar. Mhm. ñu yóbbu ko hôpital Dakar mu amee asthme ñu jël garab bi ñu bindal ko ordonnance mu yóbbu ko ci pharmacie bi pharmacie bi jox ko ordonnance asthme koo xamante ne pour mat la du pour xale. Mhm. xale bi daf du xam a xir ni. duñ ko yo hôpital lañ gis ne dañu jiw ci ordonnance bi ko bu pharmacien bi jox. mais que ça loolu tamit c'est des erreurs yoo xam vraiment. Sénégal war nañ ci gën a gëstu te war nañ ci gën a taxaw daal. <laughs> jërëjëf xam naa ñu bari dañuy. kontaan nañu kontaan nañu témoignage yi am na solo. isaan leen gërëm di gërëm Papa Ndiaye Loum Ndiaye di ko ñaanal yàlla na fi yàgg. amiin amiin amiin vraiment vraiment li ñuy li ñuy yee. li ñuy yee ñu ngi nekk Europe seen waxtaan yëpp thème bu ngeen def rek am na dara lu ci jàng. vraiment tata maa ngi gërëm ñëpp. jërëjëf jërëjëf di gërëm di gërëm. jërëjëf vraiment ñu ngi gërëm. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf. gis nga taa dégg xam nga wax ji wax ji lan la. Mm. faudrait que ñuy bàyyi nit ñi ñuy porter plainte xam nga fu instant bi Sénégal bu ñu nee porter plainte nañu jëm police rek ñu woo ay kilifa ñu ñëw di la wax diggante jullit ak moromam. gis nga mm. kilifa yi ci seen bopp. Mm. suñ leen woowee ci yu ni mel ñoom ñoo war a bañ. parce que tant euh, impunité bi mi ngi fi taa kenn du ko mës a résoudre <laughs> képp koo xamante ne daal yow fexe nañ ba sa mbokk jëlee ci feebar goo xamante ne kenn xamul lu mu doon wala ba génn si àddina nga am sañ-sañu dem police am sañ-sañu ku ñëw na la ñaan ma seet ma si nga bañ nga bañ tata dégg c'est vrai que yàlla mooy rey mais tamit dafa ëpp daal <laughs> wan euh, même ma crise allo allo waaw bisimilah salaamaaleykum aleykum salaam tata dégg ñu ngi leen di sargal bu baax a baax ah ñun dem ba ñu ngi dégg émission bi. dëgg la dëgg la ngeen di wax waxu waat. saa dëgg ngeen da ngeen a baax rek. ndeysaan wax ay waat mais waat yooyu coutume la rek. Mhm. médecins yi léegi c'est des charlatans. Mhm. waat bi coutume la rek bu ñuy def mais c'est des charlatans. Mhm. ndax tey très souvent médecin vraiment ñëw na malade néew si. ci xam am solo dëgg la stress su médecin bi xam nga am na ñenn ñoo xamante ni ñu bëri. Mhm. ñoo xamante ne nekk laa laago dal na leen. lu mhm. mel ni handicap ci piqûre rek. piqûre bi laaj bëri yóbbu sa doom mu normal ñu naan dañ koy piqûre rek piqûre boo xamante ne kawaruta piqûre ma ngi lay piqûre wala boo kawara piqûre ma ngi lay piqûre te xoolu piqûre wala boo xolu piqûre xol ba mu lay piqûre xol ba mu lay piqûre rek bon na boo xam ne mu gaañ sa doom loolu yëpp na fi ci loolu fi ci ligne bi allo. allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. oui dama bëggoon a participer ci émission bi. waaye bi ñuy paa bi nag dafa pauvre. Hmm. mais ko bàyyi ci couloir bi ndax 5000 francs le temps que famille ñëw paa bi di feebar di sañ sañ ba nu mu tëddee ba jabaram demee di wuti gën le temps que balaa mu yegg la jabar ji dee ñu leeral ji dee foofu ci couloir bi. Hmm. foofu ñu ko teg ndax junni. ndax junni. <laughs> kenn xamul lu ko të. exactement xamuñu problème am ndaw si dèjà ba muy indi jabaram ci jëkkëram ci saret la ko teg. ceeb. su andee tëral ko foofu ñu laaj ko juróom mu taw dem seen village. ndeysaan dem di di jënt ji junni balaa muy ñëw di ko jigéen a. métti na laaj. man mii di leen wax nii France laa nekk. fii boo ñëwee ci hôpital yi balaa ñu laa laaj xaalis dañ lay faj. dañ lay faj ba noppi. ah faj ba noppi. booy wuti. saab saab yi lay tiim. dañ lay man ba ma muccul gisuma yaay gisuma papa gisuma kenn waaye ñoom ci seen bopp boolu ma woon sax famille sama jëkkër laa nekkal mais dañ ci doon naan la na tekkee si paa yi foofu paa wax peur dañ lay naxantaa dañ lay nax ba yow doo xalaat famille voilà donc euh, Sénégal war xaalis boo ko amul wala ñiy jaay garab yi dina ko jaay par détail ci biir hôpital bi dañuy jaay garab yi par détail xooluñu date bi xam ndax te périmé xamuñu ndax euh, xamuñ ci dara boo xam ne sama bopp day nekk ñu daal di yëkkati benn comprimé jox la ne la ñox jot la dund. Hmm. voilà donc euh, sincèrement seen émission bi nga di def moom c'est très important parce que lii ba ba muy am yàgg na mais lii dama ko gardé woon. dëgg la dëgg la day sax ma ma waxoon ko. dëgg la jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ñu ngi leen di remercier bu baax a baax. xam man ban question la am envie poser la allah di mu urgence. lan lay signifié hôpital Sénégal ñu teg benn bureau ca buntu ba. Oh, def ci urgence mm-hmm. léegi urgence man moo boobu laa bëgg xam sénégalais fii ci hôpital ndax urgence comprendre nañu lu muy lu muy signifié ndax ku ñëw en urgence dañuy gis ku ñëw en urgence mais ambulance ku ko mën a indi en urgence li ngay njëkk def mooy wàccee ko mhm. yaa ngi dégg ah xool ko cek ko mu am ay système yoo xam ne dañ koy cek lu gaaw xool fi kii fan lañ ko war a ventiler uh-huh. mais fii da nga sa urgence indi ko mm-hmm. benn hôpital urgence lii la sa xool taxi mm-hmm. bul wàcc bul wàcc amuñu temps amuñu place allo salaamaaleykum maaleykum salaam naa dal Zeyna waaw soxna si

ndax bu sañoon da doon leen toog sa jur. Mhm. man may accident moom sama faa dal. Mhm. mu ëmb sama sama taaw. Mhm. dem ci mbàkk ji. bu ñu demee saa saa ba ma war a matal. xam nga loolu def daa tëb si di ne ma bàyyi ñu muy yuuxu ko jooy. Mm. léegi de sama doom wane génn ma di ko ñëw sama doom loolu sama doom li ñu wax. maa waa sax xëy ak seen yuuxu yi ba ngeen koy def neexoon na lool. tawal sama taawu woon taw bi dañuy dafa posé woon 4 kilos 500. Hmm. amoon nañ ma mujjee def bi ma déggee ba njëkk ma sama biir bi daal lañ toog daal bëgg ko pour sama tool bi génn. dañu toog sa kaw biir. ak toog sama kaw ko. ci toog. pour sama doom génn. ma la taw woon sama premier doom la woon. muy ba a feebaree démarché maternité ba xam nga dina wax da ngaa fali sa yàlla man sama biir dafa desoon a ma da ngaa sibbiru. nit ba nga xam da ngaa na toog nañu te fekk sa biir ba noppi. fekk toog nañu sama biir. nga ànd ak mat ñu ne faax toog sa kaw biir. sama biir sa doom bi rëyam day bëgg a dee. maa ngi Europe boo fi nekkee di matu dafa ñëw Europe fii balaa maa am doom defaat naa trois ans ndax ragal ndax ragal ma doom. ndax traumatisme. ndax traumatisme ma def trois ans fii booy am doom dañ lay def comme yow dañ da nga koy faat ànd gi. <laughs> da nga koy fàtte te te te te ay jigéen comme yow ñoo la ko def. ay jigéen ci man te ay mag lañu bu may waxee yaay xam nga lu may wax. Hmm. dimbali ñu dañuy def suñu rajo te mën nañ ma mën nañ ma def présent nga naan ma dimbali ma suñu ma rajo ci sama marché bu ma ne wuy yaay ko wuy yaay jàppale la wuy yaay maa ngi dégg ñu ne ma bu ma wax yaay. mbaa <laughs> soxna si lu tax porte plainte bi nga génnee. man foote bopp leen ndax massage ba sama yaay ci ma bopp ab xaritam moo ko doon liggéeyee sama yaay man ci loolu rek laa moo tax porte ma leen feneen. maslaa googu nag la ñu war a ba. ci ma genre boobu duñ fi jot ma rayoon yow gannaaw samay xarit samay xarit man bu ma dee woon dee naa ci foro. yow kay xam naa ne ne mënoon mënoon na la yóbbaale yóbbaale sa sa doom. wallaahi ba taa dégg ngeen. Mm. Ah, waaw waaw waaw waaw waaw waaw baax na. waaw naka la ko day dañuy jël seen temps la. Mm. même booy da ci woo ay la moralisé la waxante sa moral parce a doomu génn doo ko yëg. Mm. waaw. jërëjëf jërëjëf soxna si boo amee sa métit boo xasee ba dem ci hôpital yi fàtte sa métit. Mm. jërëjëf maanaam boo mënti mett lu mu métti métti métti métti boo ñëwee mu ne affaire yi rek nga daal di ji sa sa sa waaye Sénégal ci boppam lu moo fa am bu ñuy jël di leen liggéeyaloo ci hôpital yi. mbokk mbokk donc lañ ci liggéey loolu ci hôpital yi te bàyyi ñi nga xam ne dañoo jàng yor seen diplôme ñu ne leen ko ñëpp rek naan kii sama doomu mag la wala mm-hmm. sama doomu liggéey la mm-hmm. dafa dugal ci métier boo xamante ni xamul ci dara taxawa mm-hmm. ne loolu du yoon ku ci déewam ko sa daal di ñu ñu nañu waxtantee Sénégal la fa xew xewul fenn ci àddina bi xaw na nit am na ci ñëw ngi dina dix neuf naan joxal ne seen biir bi boo bëggee ñu jàllale la joxal lii diw diw diw xam nga loolu dafa nekk moment bi. ci hmm. nit am na xar am na ci Sénégal bi moom li waxee moom man bu may gis yéen ci télé bi ma nekk France damay toog booy far may defee. ndeysaan ndeysaan jërëjëf. jërëjëf. gis ne sa ngi ci. waaw xam nga lépp ngi ci. kenn xam nga xam nga diggéen malaat <laughs> euh, malaat hmm. dafa àndut ak négligation euh, parce waxal li ko dal mën a ginnaaw saa borom ndax am na bakkan yoo da ko jaarale ci nit di ko ci bu yàlla mën na ko ci dimbali mm-hmm. ki tëdd ne ci diggante dund ak dee daana wax ñu larsan na tàddeelug dee ba doo dee waaye na taxat boo ko amul dee <laughs> cay numbelaan sooy jële ko ci ligne bi fi mooy salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay nuyu Leye. fay naa la nuyu Degene di nuyu tonton Ndiaye. léegi dama bëggoon euh, j'appelle de Sénégal bi laa nekk. Mhm. dama bëgg participer ci Wareef. Mhm, ngay dégg euh, thèmes yi ngeen doon def yëpp am na solo. Mhm. waaye bii xam ragal naa ni amul bu ko gën a am importance. parce que euh, chef de l'État bi mu ngi bëgg. def couverture maladie universelle ak yooyu. Mhm. am na lu ko ëpp solo. mooy traitement bi médecin nekk ci hôpital bi di defal euh, patient yi. parce que man euh, euh, benn exemple la pour vous confirmer li ma doon wax. Mhm. bi muy wax. man mës am crise asthme ay 3 jours du matin. ñu yóbbu ma fa sama frère sama benn tante yaay. bañ fa traitement bi ñu docteur bi de may sëq di sëq boo gisee ni muy def kanam gi buy sëq na nga tourné fee ni muy ni muy ni mu def dafa dem ba nga xam ne hôpital boobu ku fa hospitalisé sax mënu ma fa teg sama tànk di seeti nit tellement que ni ma docteur bi mhm. docteur bi ni ma ni ma comporté loolu dafa dem ba nga xam ne hôpital boobu dama ko sikk mhm. boobu ma la sax nag man ma dem fa mais seeti malade mënatuma ko mhm. boobu benn la beneen bi def am moo tax Sénégal daal li ñuy ñaan Tata Deguene mooy. yal nañu yàlla may wér. amiin ak wéccet amiin wér ak wéccet. wallaay laay la franchement quoi qu'on puisse c'est pas pour faire une bonne presse pour les cliniques. mais boo amee ak tuuti wéccet dem clinique traitement dañ lay def ak hôpitaux yi du benn. ndegam hôpitaux yi lay fay ak tuut ñu defal la traitement boobu à plus forte raison boo demee ba nga xam ne gratuité la xam nañ doo fay traitement bi gën a. encore beneen bi. hôpital euh, naa hôpital Fann mhm. ñu opéré ma. biñ ma opéré maa ngi dugg salle d'opération ay 11h euh, ci suba. Mhm. Mhm. le temps may ñuy opéré ba ma yeewu maa ngi yeewu ay 19h30. ba ma yeewoo ki ki ki nekkoon foofu garde ci salle de réveil bi. dafa yàkkamti woon ñibbi ñu ngi kërti kërti ñu yóbbu ma directement sama salle. ordonnance biñ ma waroon joxaale pour ma jënd ko pour calmer douleur guddi bi kenn joxuma ko. donc ku ñu opéré le lendemain ma ne leen man sama bopp bi day métti yooyu ba ba léegi joxuñu ma docteur ah joxuñu la ko ba mu dañ la ko fàtte jox mi bindal ma ordonnance. ma ma ñu ma woote ñu ñu ñëw jël jënd si ordonnance bi deux jours ba ñu jëndee ordonnance bi ba deux heures gisuma koo xam ne dina ma def sa perfusion beeg yooyu pour calmer douleur yi. boobu la ñu def ba kii ba pare en plus de dañ ma euh, ordonnance boo xam ne augmentin sachet la augmentin c'est antibiotique je devais prendre pendant trois jours wala yooyu léegi le médecin le professeur était avec euh, un stagiaire le stagiaire s'est trompé bu def pendant trois semaines. Hmm. trois jours mu yóbbu ko trois semaines. mu <laughs> il n'a même pas eu le temps de vérifier si l'ordonnance que le stagiaire a donnée, c'est bien léegi dafa fekk ma dem jëndi ko bu ma ko demee o ma ko jëndee mun na ma non dafa juum dugg na fii génne fii ma dem ci pharmacie bi pharmacie bi bëggul woon jëlaat ko jëlaat ko mais benn compromis la ñu mujjee am mooy dafay jël yi léegi dafal ma avoir pour te dire xaalis bi bare na parce que dafa na ma avoir plus de trente cinq mille francs hmm. donc moo tax dëkk bi li gën li ñu ëppal solo pour président bi mooy traitement bi ñuy réservé. Hmm. war nañ fa def ay caméra non franchement. hôpitaux yi war nañ ci def ay caméra. moo tax léegi Sénégal moom. daanaka waa dikk parce que am na tamit boo xam ne maa ngi fàttali ko en 2000 à l'hôpital principal da nga fa chambre bi nekk à côté. dama dégg ndaw si ay sëqat di sëqat di sëqat bi ñu sëqat ndaw si guddi gi mu sonn trop ñi mu nekkaloon parce que moom euh, chambre commune la nekkoon. Mm. ñëpp di nelaw. fi fa ma nekk dem seeti ko ne ko soxna si lan la mu ne sama bopp mooy ma bokk ma ne ko massa xaw ma parce que xaw ma ban maladie la am. Hmm. xaw ma ndax am naa droit may ma ndox xaw ma ndax am naa droit jox ko ndox wala dara. Hmm. ma dem guddi googu ak lëndamaay boobu tam ma ngi par jour bu hmm. ma dem ba ci salle de garde. kii kii ñi mu gàtt mu ngi tëdd ca kaw taabal ba di nelaw nelaw yu metti mhm. ma ñëw yee ko ne ko sëriñ bi nit ki nekk euh, chambre lii tey mu ngi bëgg a dee yoon ñun mu àndax man ñëw xool ko naka lan la mun sama boppam ne dama mën naa mu ne ko noonu waroon naa tëdd rek dina dal <laughs> man la lendemain après bi ma ñëwee c'était un jeudi le c'était un vendredi ma ñëw visite lundi ma la ma dem di ko seeti ma ñëw ñu ne ma gaañu na ci vendredi boobu mhm. donc euh, c'est-à-dire négligence. non mais li ñu war a wax ci. mais ngi jégalu lu tax ma tëye téléphone. non mais am na solo a moom émission bi. dama insister parce que y a beaucoup à dire. waaw ah, yéen a moom émission bi. parce que man dama bokk dama am malchance boo xam ne dama wéradi. Mhm. moo tax yu bare dama koy dund. Mhm. tant que wéradi woo yan saa yi sax accompagné nit du kii mais il faut nga wéradi Sénégal pour dund carrément li ñuy def. Mhm. li muy def imagine toi lu ma war a jël trois jours bu ma ko jëloon émission bi seen émission la. Mm-hmm. émission bi seen émission la. ñoo fa dugg amuñu laago génn faak laago bëri na. Mm-hmm. ñoo fa dugg nee naa la gis nga zëy fu mu ne euh, nit ki lu lay metti rek ngay dem hôpital mën na la ci def. ma alaaji mm. amal tànk rek fa soo moytul ñu opéré sa biir bi. daggate la def la ay yëf yoo xamante ne soo toogee ñu naan dañu juum ba pare li gën a te juumte googu dañ koy jéem a dissimuler yaa ngi dégg ba pare seen chef yi di leen jéem a couvrir ci yoo xamante ne nekk amul sens fekk ne nekk yàq nañu nit ki yàqati tey ci réew mi am na ay déminents professeur ay déminents chirurgiens yoo xam ne ñoo fi def erreur ba pare soo toogee ñuy nof nga fekk di ut ay intervention pour mu bañ a yegg moo tax sénégalais il faut ñu fi pour xam seen i droit xam seen ba pare xam yan jumtukaay ci wàllu droit la ñu war sukkandiku pour di porter plainte ndax tamit affaire bi dafa yomb ñu ngi rey nit ñi nañ dem pause léegi dellu <laughs>